suuratul majid saaru majid makkiyatun baleeg makka la illaa wala xar xalaxna samaawaati wala doolaa fa madaniyatun loola ko jëg madina la de xamsun juróomi aaya la waa sona ñu daadi ci jaabeeb bismillaahi sa sunu wax sama ci tudd tudd buur rahmaani ka daaji xeewal bi daafun lépp jaadu yaa arayimi ka daaji xeewal ñu daaji alaxira xaaf kooku ci baatin bopp baani nga xam ne laa alamu bi muraadi yi moo wét ci kiréem baatin bopp saar yi ay xaraf lañ yu yàlla sànni ci téere bi xamuñu seen maanaa ñu ne ay xaraf lañ yuy junj ay baat ñu ne du saar wi la waaye li gën a wér daal mooy kóode yi xamuñ gëréem de xaaf nag mook saar ci yoon li doon nañu ay mbokk lañ ñoo xam kanante baa bu ci nekk tàmbali nañ ko wenn xaraf saa tàmbali nañ ko wenn xaraf muy saa xaafi tàmbali nañ ko wenn xaraf muy xaaf saaru saa ñuy teg yàlla rek da doon bidal moo tax ñu nekk liggéey bindal aadama ci nga xam ne yàlla bind gim bindi mbindeef yi ci lañ xamee kàttanam ak xam-xamam ak am wéetam te lim bind yëpp aadama ci gën a màgg ak ci dooma xaaf nag bidi àlaxira lekk lay sa lay bidal ndax la ñëw ëllëg ci àlaxira moo tax ñoom ñaar ñu nidoo ñu bam ne saaf daf ca teg ne wal quraan ci zikri fii bi ñu ne xaaf lu mu ci teg wal quraanil majiidi foofa mu jàngat faat Quraysh ba ñëwee ci yonent bëgg a jubóog moom dama waleen ci tawhiid an imshuu wasbiruu alaa ayaatikum aja'ala al-aalihata ilaahan waahidan luy def rek la saaru saat dikke moo tax yàlla nekk li jaar qaala rabbuka lil malaa'ikati inni xaaliqun basharan min tiinin danaa bind aadama bu jënt rek saarwa bu gëje ko kese aadama ne ba yàlla jëlee malaaka yi nañ ci jógal aadama bii saar nag moom bi di àllaaxira ko tax a jóg moo tax moom yonent daana ko xutba ci xeer ndax zaalika yawmul xuruuj mi ngi ci te zaalika xuruuj mi ngi ci xasrun alaynaa yasiirun mi ngi ci ba mu waxee ca saa saa wal qur'aani bi dikri nga xam ne tawhiid la dikkee bind ak aadama la dikkee te jëna ko inu ko illaa zikrun lil aalamiina moo mujj ci saar fii saar yi àllaaxira rek la fi saar ñu ngi ko tëjee ba zakkir bil qur'aani man yaxaafu wa'iid xarab yi nag yàlla génne na ko ci alqur'aan ci barab yu bari nag la xam ne génn na ci yëf yi itam ci barab yu bari saar yi nga xam ne baasi bopp saara nga ca ñaar fukki saar la ak juróom-ñett saar yi nga xam ne ngëñ a ngi ci li ci wa saafaati wa tuuri lu demee noonu yooyu fukki saar la ak ñeneen te genn wàll ak genn wàll ak saar yi nga xam ne am na baasi bopp saar lu tax saar yi nga xam ne yàlla géñ na ci caaram yi nekk na ci mboolem kaame bi alif laam miim calañ tàmbalee ba am na ci xaaj kaw bi am na ci xaaj kaw bi waaye ci am na itam ci biir saari sax du bopp saar wala wax sëw bi xuna si jawaange xuna si ngëñ laa nga yëgg ci saara wala wax sëw bi safaxi wala réew ma wasa dana dem dugal ko ci biir saar te itam saar yi kay moo gën a bëri saar ak juróom-ñett amma ngay ñi ci yëf yi nag ma ne ngeen ci saar ngeen ci xaraf yi moo gën a bëri ndax nit ci saar la ak juróom-ñett ngeen ci yëf yi moo gën a néew ndax moom am na ci biir saar yi ngeen ci yëf yi sax amul lu may ci xaaj bu mujj bi ci Alxuraan wala ci suba bu mujj bi sax boo ci dindee war safaay boo ci dindee war safaay yi ci nekk yëpp ci suba bu mujj bi la nekk wëccoo rek wëccu xaraf wala am rek yëpp gën ci xaraf yi nag du nekk lu may ci bopp saar ndax wax bi ñu xamul firéem dugg ci biir wax yaaram loolu fay doon lim lëdd moo tax bi mu nekkee ci bopp saar yi sax la jël nañu sakka bu duggoon ci biir wax ji nag am na ci benn xaraf saa xaa nuun kooku benn xaraf rek la ngeen ci yëf yi itam ñëw na ci benn yoon ni ki la yàlla wax ne wala asri inna l'insana la fi xusrin benn yoon rek la géeñ tont la ñëw wal nañ mi idaa benn yoon rek la géeñ maa ba tos maa ba la saa yu ma kawaay mu ni doog saa ak saa ak nuur géej na itam ci yaari xaraf ni ki xaamiim yaari xaraf rek la yaasiin saa haa saasiin géej na it ñaari yoon wax na ne wadduhaa wal layli idaa sajaa was samaa'i wa taariqi génn ñaari yoon tont la soog a ñëw xaraf yi ñëw na ci ñett alif laam miim saa siin miim alif laam ra génn ñi ñëw na ñett wa saaqaati saqan wa saajiraati sajran wa taaliyaati zikran inna ilaahakum la waahid arab yi ñëw na di ñenant alif laam miim ta alif laam miim ra ngiñu ñëw na di ñenant wa zaariyaati zarwan wal xaamilaati wiqran wal jaariyaati yusran wal muqasimaati amran innama tu'aduna la saadiq arab yi ñëw na ci juróom ka a ya ayn ta a miim ayn sin qaaf géej ñëw na ci juróom wa suuri wa kitaabin mastuurin firaatin mansuurin wal baytil ma'muuri wa saqfil marfuu'i wal bahril masjuuri inna azaaba rabbika lawaaqi' wal mursalaati urfan wal aasifaati asfan wan naasiraati nasran wal faariqaati farqan wal mulqiyaati dhikran wan naazi'aati nash'an yooyu ñëw nañ ci juróom naka kaaf haa yaa ayn qaaf haa miim ayn sin qaaf yow di juróom tax na ba ngeen ñi ñun ci jëf yu feeñ yi am na lu leen bakkee ci ngeen ñi ci xaraf yi de weesu juróom nag ndax baat bu mën nga firi toggale ko ba mu ëpp juróomi xaraf loolu rafetul ci wax yaaram ngeen yi ci yëf yi itam weesu juróom lu mooy ci benn barab wasam ci wàllu xaaral kooku moom li mu li mu la bëgg a juróom dugal na juróom ñaari yoon bi nga xamee ne yàlla génn na ci araf yooyu ci nit ci saa ak juróom ñett dina wàcc waaye weeri génn ci genn wàll ga ci yëf yi loolu moo la xamal ne araf yooyu ci bopp saari ay ngéñ layu yàlla yu génne de dañoo takkoog téere bi nag buñ tudd xaraf yi rek fokk ñu tudd téere bi alif laam miim dañ ca daal di teg zaalikal kitaabu saa wal qur'aani di zikri yaasiin wal qur'aanil hakiim xaaf wal qur'aanil majiid yu lëkkoo ak al qur'aan la moo tax de buñ tuddee xaraf yooyu ci saar daal lay dikk si ca saaroo ci njàngat lépp ca saraasi araf wala ba te jeexal ko xaaf ñu ne mooy daj wa nekk fa àddina yam moo wër suuf si suuf si fa même diggante yow géej ga yàlla nga bind aw daj mooy daju xaaf moo fa nekk wër wër àddina si ni ci corniche wal quraan yi géej na ma al quraan al majid di gërë aji tedd géej naa ja al quraan bi tedd ci lee ne baru makka duñ gëm mukk de loolu mooy jaab ja dañ fa asaf asaf nañ jaab ji ngir li nga xam ne bés na ba moo gën a feeñ lépp luy feeñ ndax yéefaru màkk xemuñ sax ci weddi bal bay da xaji boo xéem nañu an jaa am ku dikkale leen mun ci doon aji waa leen mun ci dikk ci ñoom xemuñ ci weddi yonent bi xemuñ ci nar loo ko bañ koo gëm dañuy xéemu sax naka la yonent bi mën a doy ab yonent lii lu ci xéemu jaam yàlla bu yàlla tànn yónni ko ci jaam yi gëmatuñ ko fitteer nañu seen ak ñàkk gëm àgg na ci seen ñàkk gëm gi ñun moom lañ def kéem daan ñoom na yonent bi nooy ab yonent loolu lañ def kéem daan yàlla ne ñu ngi xéem ab yonent ñu ñëwalee du foofu la foofu la dayoo kéefar xem foofu la dayoo teew xem fa xaala tawa alkaafiruna way weddi ña ne xaasaa di leen xéewul daf daa ji mundu de aji xéemu di ah nit ñëw naa yàllaa ko yónni lii doy na kéem daan di yéefara dox tigi yàlla doj kat mën na yàlla doj moom mën naa doy yàlla waaye Muhammad mi di nit rek kooku war na doy yonent ab yàlla ay laa mit naa dem deena nu wakku naa doon nekk turaaba ni suuf daan dellu si waxuma mun a moom buñ dee ba kunuux daañ dekki daal gën a leer a ñoon ak dellu la bàyyi nu bu daa ji sori rek mu ne alaandi naa xam nanu maa tam ko fu la dana wàññi ko dallu suuf maa tam ko fu la dana lekk ko dallu suuf minum ci ñoom de ku ci nekk la suuf di lekk ci moom yëpp yàlla xam na ko waaye danaa aji nekk la fi nun kitaabum téere xam yi nu bu daa ji waxtu de damooy rawi ma boose ban bayit kese boo wet nañu bi la ak alxuraan damaa jaawam ba mu dikkale leen boobu ñoom te am rinaa ji nekk lañ ci mbir mari ji mu daa ji firéente de ñi ngi ci mbir mu firéente ñii ne nañ yonent bi jabar la ñii ne yonent bi woykat la ñii ne yonent bi buxaaba la alquran jabar la alquran way la alquran ak buxaaba la yooyu wax yooyu wax àndul de afalam yanzuru ndax dañoo seetu ak seeni bët te xalam ak seeni xol ila samaay jëm ci asamaan xorxorum ca kaw seet teeñu xool asamaan si moom mën nañoo xool gis ko seeni bët man xalam nag suñ ko xoolee kay to nee naa naka nu tabaxee ko ci dugub kennu ba sooyee maa tam rafetal ko ba maa laa te dee ñaar ko min ko ñu ay xar-xar de asamaan si lee xam ne man ngaa xool janu moom doyut kéem daal seetlu leen ko itam ak seen xel di mun day amut amut ab jën amut amut aw jën amut gàllal amut ay kennu te doo ci gis bën bën wala la suuf maintenant atalal nañ ko suuf si ngeen dëkkee ñu ngi ko teg ci kaw ndox mi waan xëy naa doon sa sànni yaa coora si ay doj waan ban naa doon soxal si ak moom suñu taw bi ñu jëm pexe day suñu lay jafe. daf ci la dem njëkk a diplore ba ci grave di ko andi ko di xam ñaar bépp jàmm ñu ngi ngul delloo ak nit ci bopp topp ak borom de wala sax naa doon wàcc mu ne sama yëngu jaay sama maam ndoxam taw mu baaraka mu di bas bas. bëri ci barke faan bat naa tan saxal lii ci ndoxam taw janaa sini tool waxa balxasi ni ak pepp ma moom mbay muñ góob la def wanax laak tandrama basi xaadin di muñ dëwee gudd ay banqaas daa ñaan na ko talawoon góor fe ñet nax yi dum daa jirankaloo de risqan bi mu wërsëg dina baali ñaan jaami waaye naa tan dundal bii ci tawam fadda tan suuf may tan sudee aji woow te saari ka kem googu de dundal suuf gannaaw bu bu mbowoon alxuroo bi la génn gëstu ko ci seen i bàmmeel weddi dekki bu koy weddi soo seetee taw bii di taw di soxal gàncax nga xam ne que mën a def loolu mën naa dekkal ku dee génne ko ci bàmmeelam de saar yi moom àllaaxira rek la leen indil gëstu ba weddi woon nag xam loo jëm njëkk seen xaw ma nooy nitu nooy saaru Makka nag foofu loolu am ci nekk li jàngat yonent yu jëkk ya ak seen xëy leen weddi woon waa saabu rafet ak waram bënn ga ñu ne am sala tey Mustafa ñu ne Shuaybu wa Samuud Samuud ña waa na dina naan wa Firawna Firawna yaqaan loolu nag bokk ci la waa sabu laykati ak waram galfa mooy nit ci Shuaybu wa qawmu Tubba ñu naan nit ci Tubba buur la woon bu dëkkoon ci Yaman yëpp loolu na nekkul képp yónni képp na ci moom bu dul képp te sama wet dinañu rus la yónni des fois xatawaat ñoom waaye di képp sama des affaire yi naan ndax dañoo lott ngeen xam ne jëm bind gën a wëri ak jëkk ndax yàlla ñuy bind bindee fi bu jëkk daf cee lottoon naka lay lotte bon ci bind ak ñaareel ba day um ñoom fi daf tin way nekk lañ ci bind ñun xam duñ ci bind jël ñu ngure aji xeerte yàlla sosoon bindee fi bu jëkk mu ne dama ko delloo ñu ne loolu amul wala xarxaraa naa bind na lu taana mbir ma naa dama dana xam maa ko si suuf la dama solotoo bi ci moom nag soo ba kanam ne yàlla bind nit ki ba xam na lu ko bakkanam di faroo wane na nun aqrabu moo gën a jege lay jëm ci moom dina abdil wari di ci bu ma xol de te yàlla mi la bind kat bu ma xol di jàpp ci sa xol bi xam ne bu dogee nga dee lim lay jege yëpp yàlla dafa gën a jege dini kat dina ci xam-xam waaye laa yi cëkkërewu loolu rek nun ñoo gën a jege nit ki bu ma xolam keneen mu ne wane nu aqrabu ilayhi walakin laa tubsiruna na ne maa leen gën a jege waaye gisu leen loolu wane na ne jege gi jege jëmm la de ndax jëmm rek lañ mën a gis xam-xam kenn mënu ko gisee di seetlu la xaaraa ba gën a jàpp ak mu taqiya mu mutalaqiya ni ñaari way dajee ba nga xam ne yaari malaaka yi nga xam ne moom lañ wàcc nit ki anil yamin ci ndijoor nit ka waa ni simaari ak ca càmmooy ak nit ka xaane du ñaari way jëkki lañu de ba nga xam ne mu kallaf mu nekk yàlla nga ko boole ak ñaari malaaka raqiib ak atiid ci ci ndeyjoor bi lépp lu mu def ci yiw moo koy bind ci ci càmmoñ bi lépp lu mu def ci safaan moo koy bind maa yalfizu baata timu min qawlin ci wax ilaa ladayhi dara aju nekk la fa moom raqiibun aji wattu atiidun di aju teew moom de amul benn kaddu booy wax lu may malaaka ma dana ko bindee wa jaa'at dikk sakratul mawti wextanu dee gannaaw loolu nag loo gudd gudd fan yaa ngi mujj ci te laaj ci rek waaw te doo soo jóg de waxtanu dee daal di dugg bi la ànd ak dëgg daal di ko kooku la ci dee maa kunta mooy la nga nekkoon tey lu ci daw mi ci moom de daw mi nga dee mi nga doon daw yow doomu aadama nag mucc nag dee lay mucc yàlla dee gan moom daw boog àgg na ku dee moom te tey jëm yàlla taxaw na wanu fi xata wala fi suuri jëm te bëre daal di ko boobu de wala gub yow moom waaye di mooy di def dëkk bële bés bi walee bu te nag dekkal ñëpp kooku mooy bés bi yàlla doon te koo jaami rek wa jaata di kul na fi bépp bakkan maa aji naka la ànd ak moom bàyyi kon malaaka mu de aji màng ko wa sey na malaaka mu de aji sari ñe waral ko rek ak ñeenal ko këñ cap yàlla ku ne na ñëw malaaka am ko joñ jiital ko wala mu ni ko defal du nekk gëm yàlla la an malaaka yi doon seere ay jëfam ñu naa ko ñu naa yéefar bi nag laqad kunta nekkoon nga ci àddina ci xasati ci càggar mi naa saa ci déwee ba nga nee ci àddina sàggane woon nga nii xamula woon ne daañu la dekkal isaab la parce que naa hun ñi nanu an ta waris la ci saaka muuraay sa ba basaru kam ci saa yow ma ngay aji na aji ñaaw la rek léegi nag muri naa sa bët di la di la di nga gis doon yëpp yaa ngi jaam moom de wa xaala ta wax xarit moo aji la koom jëf yi rek di malaaka ma nga xam ne moo doon bind ay jëfam ah saali de maa la daye mooy la ne fi man atti dina aji teew de su ko defee malaaka maa woon jëfam daal di indi karna ba paj mais ko lii la ma si jëf de di teer lépp de ay ñaaw de buur ne ab xiyaar sànni leen wala ab xi sànni yow malaaka mi fi jaanama ci jaanama kulla kafaarin bépp wet yaa kon hani di ko de aji dëgganteeg dëggale képp koo xam ne dafa weddi woon yàlla sànni ma ko tay ci safara de man naa leen ko di tere aakon lil xayri ci wiw mu talin ku daaji tooñ mu rijul ku daaji sikk diina lislaam alla si kaaka jaana def na maa laa ata yàlla ilaa yàlla axara jeneen waa xiyaaw sànni leen ko fi laa saal jëmm gën ma ashtati di mu daaji tadde xaala xarinoo aji lëkkoom jota mooy saytaane sa rabbana yow borom sunu maa fay maa fay ko man day réeral ma ko su ko defee saytaane si ne doon réeral daal di taxaw fële ne yàlla man ka réeral ma ko woon walaakin nag kaan ne ko nu dootalaale ci réer bàyyi su mu dee aji sori de moom it dafa réeroon rek moo taxoon mu topp ma ne xaaral wax yàlla laa tax sax fi moom bu leen xuloo la dayoo fi man bu leen xuloo fi man wax dëgg xatam bi jiitaloon naa lii rek ku jëm ci yéen ci àddina bi waaye di tëkk bi waaye di tëkk yéen tëkku woon naa leen ci àddina ñàkk wéet yi laa koy faye kon bu fi kenn jënd di jàngat de waaye bu bëtt lu déglu watt al xawli wax la dayoo fi man de man sama wax kenn du ko soppi rek wa maana bien man bi salaamin ma aji tooñ dinaa bi ci jaam bi de du ma buggal kenn ci lu bakkaar yow ma yàq wolu bés ba dina wax yàlla di jaanama ñaar jaanama alim salaat di ndax fees nga ba nga xamee ne yàlla dina fab yéefar yëpp xëpp leen ci jaanama buñ ne xëpp aw xeer rek mu ne ko tërax wan na yàlla ne ko ndax fees nga ba taxul taxulu ba taxulu ba taxulu te wax jaanama alim ma diini ndax yéleen doli de su ko ne ndax fees nga mu ne ko ndax doomu doli de mu sanni weneen xeer ndax fees nga mu ne dooma dolli ba xéefar yëpp jaar du laa nga sax moom jaanama rek su ko yàlla ne ndax fees nga mu ne ndax dooma dolli yàlla yi jël tànkam nag teg ko ci kawam nag rek mu fees gën nag naa xat xat xat xat xat boobu sifati sa jege ñu reer aljanna to aljanna leen sax na ñu yàlla ragal ñu yàlla yàlla ñu yàlla boole ñooñ joñ nañ leen sànni nañ leen ca safara ñaaragal yàlla nag gëmoon yàlla di topp yàlla ñoom ak yàlla la ñuy indi mu jege si leen de xaaral pare din bin moom bu mu aji sori leen la ñu nga janoon moom ñu naa leen xaasa añ leen ngeen di gis maa toona dana mooy la def na la dëhal la def na dëhal leen ko de lañ leen dëhaloon ca àddina ngoog ci àjjana di kulli awaa bi ñaar bépp def la aban ci topp borom afisul ku de aji wattu daa yaram de man xasee ragal na mu rahmaan aji yaram jëbil xayri ci faddu wa jaatam di ko fi xalin ci xol mu ni win bu daa yi jublu ci topp boromam de duxulwaa xaraw leen aljanna di saraamin bi mu ngeen di way mucc daali ka doone yow nga xulóon mooy gësab géen ba de lawum ñeen la leen maaye sa aw na lu ñu toog gaa ci moom te daañu am ci aljanna lu ñu toog dañ leen di wax mbébét leen mbébét leen moo tax de liñ soxlaa fóote yi ci àddina noonu lañ leen soxlaa jaaraate rek ndax jaay yi suñ leen dugalee aljanna ne leen mbébét leen itam ñu xam lu ñu war a mébét borom xam-xam yi rek ñooy xam lu ñu war a mébét looloo looloo tax daraja yi di gën a kawante ak ñi nga xam ne toppoon nañ borom xam-xam yi ñu laaj ñoom lu ñu war a mébét ñu wax leen ko ñaar jamono moom lu fa ñuy mébét rek loola ngay am waaye nag ku nekk ak sa fa xam-xam de daalika boobu de dës yow nga xuloo ni mooy bésab déet ba dawum ñeent leneen maa saa lu ñu toppee ak ci moom wala day naa taa ñu nekk la fi ñun yàlla machines yi dun ak ndoli de su leen yàlla jaxee ne leen ndax ma dolli de ñu ne ko ndax li jàppañ na ñu dolli ko mu dolli leen de te dolli leen gis ko kam alak na bari na bu nu alakee xam la mu jëm njëkk seen min xarnin ay maas um ñoom asati ñoo gën a tos ñoom ñoom battan ci kattan ba naqaboo dañ lu ñu tusi bilaadi ci réew yi al min mayisin ndax ak suuf yuwaay na fi taarika naka aji naka la jee loolu la ñu doon la ci kalaar waat diman kaana ñaan ka nekk na loo ñaan ko xal bu mu xol awal xaay ke mu sani sama dégg wowata moom tey dun aji teewal la mu xolam def wala ka xalaat naa bind mu sama waate asamani juróom yaar wala si juróom yaar bu ma bay na ma rek di gën seen si am kenn ba rek juróom benn fan de bu ma amata naa ba jëlut ñu ñun loxo bi ab coono de parce que mu ñal yow yonent yàlla moom ma xalaa ma yàqu loolu ci la ñuy wax wa sabbi sa baral bi am di am di ko mbir nga aji la boo cam te borom sa xam ne du looy sam si ci jëkk fenk ak jant ba wa xabal xoro bi ak ci jëkk soga wa mina léegi ak ci guddi sa kaddu jullit ko julli bi juróom julli juróom mu ko dile way du baara si jori julli ca gannaawam julli loolu mooy naa fi la gannaaw farata wa sami te déglul yow ma yu naa di bis ba dana woote almu naa di aji woote jëkk mooy kaafil min makaayin ke ci barab karibin bu dee ak jagañ ci asamaan si jëkk si lay ñëw wala ca bay ci ma xam si lay taxaw de daa di woote de te ee yéen yàq yu kurox yi de ee yéen jër yu doggante yi de ee yéen yàq yu ñëppatikoo yi de kawar yu safaaroo yi de seen borom na ngeen dem pencam yàlla ñëpp teewandoo pencam yàlla de yow ma yes moo na bés ba danañu dégg xayata xaaju ngi raafin ga bi raq ci dëgg zaalika boobu de bés yow nga xuroo ji mooy bëgg génn jëm pencam yàlla ne li ñuy weddi de dinaa naka nunu yi naanu nunu yi danunu dundal wanu witu danuy rey wala na kiru dellu ga ilay naa jëm na fi nun yow ma tax a xàpp bés ba dana xotee ko dara suuf am na mu leen leen siraan mbir mi ñu koy gaaw daal di ko boobu de bés akul pangala alenaa wala mu ngi si lu ay jàppandi ne daanu nun aadamu ñu aaju xam bi ma yàquloo te danañ wax ko ñoom yëppari ba ma am te déet yow bi jàppaani nga aji mënem sa aleen si ñoom fa sakkir wa aleen bil quraan ak alquran man yaxaamu ko sama ragal waxee di ay dëkk sama de te mooy ñi gëm yàlla de